certes am na amélioration mais nak euh, temps d'arrière war nañ ko djema xol touti parce que comme bus ci dafa am confort ba am sécurité bon ba am dañ def ci bir euh, lo xamné lu def lo jaadul dañ la xam jaadu na ñu temps de clientèle ndax vraiment euh, sécurité bi rek moy lepp xam nga dugg ci bus di dem carrément mu am confort am day am information yo xam sax lire ci gis ko ci kaw ñu def genre télé bu ndaw boobu te yooyu tam mën nga ko am information xamoo ko woon ci biti te loolu tam bokk na ci loo xam ne lii euh, évolution la loolu lépp nag gis naa ko ci Dakar dem dikk waaw arab bi si am na ci yoo xam ni euh, jaadu na am na yu rafet mais nag xam nga lépp mënta mate nit ki mën na defar mu des loo xam ni dañ ko ko war a wax ndax moom mënul nekk partout des fois am na arrêt yoo xam ne day doon à l'heure libre xam nga fii comme kër terminus Kër Massar moom c'est bon euh, euh, terminus Parcelles Assainies c'est bon parce que boo ñëwee da ngay toog xaar attente bi vigile bi ñëw ngeen ñëw dans l'ordre passé normalement kooku moom lu jaadu la mais booy fekkee da nga ñëw ci arrêt boo xam ne amul amul euh, amul tente ni nga bëgg ci def un laps de temps day xaw a métti jaadu na ñoom tamit ñuy xool circuit bi xool fi nga xam ne du lepp lañ mëna def ñu xol liñ mëna a ñu defar ko li mën def xaar. aw avant tout dama leen di remercier di rafetlu interview bi euh Dakar dem dig nak dañ koy rafetlu parce que ñun moom ay étudiant lañ euh des fois dañuy yombalal euh déplacement bi parce que ñun dañuy yor carte lu ci bari ci lañuy ñuy mais aussi am nañ loo xam ne nii dañu profité aussi occasion bi di ko kaas parce que des fois da ngay yor sa carte jógee par exemple ñun ñuy juggé Kër Massar ñoo di jàngé fi parcel dañu wara jàngi ci mais bu démé bu ci terminus bi des fois duñ fa gis auto lool nak mom dañ koy ñaawlu parce que bo yoré sa carte daf lay permettre uniquement Dakar dem dik rek nga mëna a mais des fois ñom dañuy am grève duñ pass duñ duñ duñ duñ manam information bi kenn duko kenn duko ki kenn duko ko wa duñ lay informer mais da ngay ñëw ba ci jour ji imagine toi nga am examen jour ji nga war a dem defi defi defi sa examen nga ñëw ba si terminus bi doo am oto boo yoru xaalis dangay ngay da ngay da ngay mujj perte waaw problème yooyu noonu daal bëggoon nañ ko souligner aussi dañuy ñëw fii nii maanaam si terminus bi bëgg a dem ñibbi bu ñu defee cours ba pare des fois da ngay toog fii nii lu mat une heure temps wala même deux heures temps chaque jour ñun fii la ñu duggee mais oto du génn loolu aussi dañ ko buggoon kaas parce que ñun dakaar dem dikk kese la ñuy jël. waaw mais bu paasee loolu daal moom kontaan nañ aussi parce que gis nañu amélioration yi ñuy def xam nga ba léegi nii léegi ñuy commencé di génn dakaar génn même Sénégal loolu nag dañ koy rafetlu liñ naan liñ naan nag euh, petit à petit l'oison faison son nid dañuy rafetlu mais. ah man de sama gis-gis mooy fii. da ngay ñëw taxaw lu yàgg oto du ñëw bis du ñëw quoi et puis tamit fii da ngay taxaw bu naaj bi tàngee nii da ngay taxaw si naaj ba euh, ba sa yaram tàng quoi moo tax ñu far taxaw nii si kër bi quoi fii nii ba yaa ngi nii mais amul mbaar boo xamante ni nit ñi dañu mën a toog pour mu yit naaj comprendre bu amoon ay euh, mbaar sax mbaar bi fay la nekkoon ñu toxal ko mais def nañ ci saisi mais mbaar bi nekkuñu fi nekkul fi bu fi mbaar bi nekkoon sax konoon nit ñi dañ mën a obligé toog si mbaar bi quoi mais comme mbaar bi nekkul fi comme table bi moo fi nekk ñuy toog si kii euh, ron table bi di xaar euh, biis mu ñëw. ñàkk bisi rek biis yi quoi bu bëriwoon konoon amana du demee nii. konoon da ngay taxaw même pas dix minutes wala cinq minutes mu nga euh, dem. non amélioration amul parce que fii moom wax dëgg yàlla jël bis bi dafa parce que bus bi du teel a ñëw ben té ñi ngi ni instant yi taxaw ci naaj bi di nga xaar depuis plus de 30 minutes ñi ngi koy xaar ñu am bus loolu problème la. légui gaay war nañ xool nu ñuy mëna yoké bus yi ba nga xamné bo ñëw ci arrêt bi au minimum 15 minutes di nga ko fi am sax benen bus ñëw nga jël ko dem mais ni ni mom instant yi dafa metti quoi condition yi. waaw war nañ xool nuñ ko améliorer parce que fi amul couverture amul dara da nga ñew ni exposer sa bop ci naaj bi ni taxaw di xaar bus bu xamne ne xamoo kañ lay ñew waaw yalla nag bo am rendez-vous wara nga comme sama genre yi wara dem def cours instant ma ngi ni 30 minutes moma déssé té suma bisu su ñewul fi ba 30 minutes tardé na kon fidal, dal amul amélioration ken xamul dal, lan la dal ni muy ka ma manque bisu la wa lolu nice na sen côté mais balaa ngay def di da ngay def fi nga nek mu doy ba pare parce que Sénégal mi ngi ni bus fi doyul nga bëgg jëlé ay bus di dem ba Banjul kon lolu benen problème nga bëgg créer passager yi nek fi parce que ñoo ngi nii amuñu bus bu ñuy dugg pour dem nga bëgg jël ay bus yobu ko Banjul lolu tamit moy lolu la da ngay satisfaire ñu nek ci yenen rew yi leen mais yow sa rew satisfaire say passager yi fa nek say citoyen moy ni ñun dañoo sonn essence te dañ ñu war jàppale nag.